merci beaucoup euh, tey dañ ñëwoon seet si leen. ci ndigal suñu kilifa Ababacar Sadikh Bèye. jiite génération Sénégal émergente. dëkk ci gox bi. te bëgg di defar gox bi. Eh, taxawuñu fu ne. bëggul ñu xiif waaye bëggul ñu wopp. feebar bi nag law ci dëkk bi. tey jii mu yeble woon. ne nag na ngeen dem fu ne. waaye na ngeen ma demal ci bàjjan bi. lii fi mu nekk nii 2600 masques la. boole kook yi ñuy raxasoo. teg ko ci sa loxo nga mën a jëflante ak ñooñee mooy bàjjane ca des waaye ginnaaw yow yaay njiit mu ne nañ ñëw ci yow dem nañ ci ASC yi dem nañ ci imam yi dem nañ ci chef de quartier yi dem nañ fu ne ndax lu toll ci trente cinq mille masques la ñuy séddale ci commune bi nee na daal bëggul kenn koo xam da nga yeewu jëppal derkale te doo takk masque nous sommes très satisfaits parce que ba mu fi duggee ba tey mi ngi def lu baax daal vraiment kontaan nañu te mbas mi lu ñu ko fi jëleel moom la ñuy ñaan yàlla yal nañu yàlla jaarale ci lii mu dàq ba faw faw faw vraiment bàyyiwuñu benn yoon toujours mu ngi ci ñun ñu ngi kontaan di ñaan di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla defal jàmm mbas mi moom yal na ko fi yàlla jëlee loolu rek la ñuy ñaan yàlla na dellu fa mu jóge woon ci ay mbokkam waaw yal na fi jóg fekk na ne nag ñun itam ñu ngi sur le terrain ñu ngi fi nekk di def li ñu war a def ci mooy ndumbe sama secrétaire su ma fi nekkul moom moo fi nekk macha allah bàjjen yi tooguñu yoon macha allah. juste pour dire à Moustapha Seck donc responsable APR au niveau de la du département de Pikine euh, au nom de monsieur le directeur général Aboubacar Sadif Bey coordonnateur du mouvement Génération Sénégal Émergent nous vous remettons ce de masques et de gel donc dans le cadre de la lutte contre le coronavirus donc pour aider et venir en appui donc aux populations de, du département de Pikine et recevez les remerciements et les encouragements donc de monsieur le directeur général Aboubacar Sadikh Bey qui vraiment sous peu de temps viendra vous rendre visite donc dans le cadre de toujours donc de cette lutte là donc contre le coronavirus je vous remercie voilà. merci euh, euh, au nom du département de Pikine au nom de tous les jeunes du département on remercie euh, monsieur Aboubacar Sadikh Bey DG Port et coordonnateur du mouvement GSE. On le remercie de cette initiative d'appuyer et d'aider et lutter contre le Covid-19. Vraiment, on est très content de lui et on ne manquerait pas de dire et de communiquer à tout le département que DG Port a, a aidé ce lot de masques aux populations de Pékin pour lutter contre le Covid-19. On le remercie vraiment, on est très content. On est très content aussi du mouvement GSE qui, qui, qui, en faire un travail extraordinaire pour accompagner et soutenir le président de la République du Sénégal. Vraiment, on est fiers du, du du port, on est fiers du GSE. Merci. merci beaucoup suñu coordonnateur suñu leader Aboubacar Sadikh Bey DG ah. bu port xam ko bu baax euh, ci jàppale bi mu jàppale askan bi ci xeex coronavirus mhm. moo ne woon noonu la indil fii yow tamit ndaxte da nga bokk ci prolongement moom mhm. ci population bi mu jàppale la loowu masque yi mhm. pour nga jàppale waa gox bi pour ñu xeex coronavirus yàlla jëlal ñu ko fii ci lu gaaw bi jaay nabi Moustapha sallallahu alayhi nga jàppale askan bi comme ni nga ko yàgg defee ndax fi ñun fi ñëwaat fi gis nañ say œuvre sociale gis nañ say action sociale gis nañ aussi jàppale bi ngay jàppale le DG Aboubacar Sadikh Bèye moo tax ñu ñëw seetsi la nii jox la loo masque yi ak gel pour nga jàppale askan bi nga xam ne nii si gox si sa gox la nekk waaw ñu ngi lay sant di la gërëm asalaamaaleykum maa ngi madame Khady Diop délégué de quartier Derklé maa ngi leen di ziara bu baax a baax di leen ñaanal jàmm jàmm ju sax dàkk di nuyu Abdou Abdou Babacar Sadikh di ko ziyaara bu baax a baax di ko remercier c'est pas la première fois maa ngi koy remercier ci lépp bépp activité bu muy def maa ngi koy suivre su ma ko yëgee rek bu soobee yàlla maa nga fa teew ci kattanu suñu borom yàlla nañu yàlla teggil Covid 19 bi yàlla na ko suñu borom bi jëlee ci ni mu gën a gaawee ci suñu réew mi ak réew yi ñu wër yëpp. ci barke Seydina Mohamed. oui euh, vous me donnez l'occasion de remercier très profondément euh, monsieur Ababakar directeur général du port et coordonnateur de la GSE en tout cas qui ne cesse encore une fois de mener des actions au niveau de la commune euh, d'appui aux citoyens d'appui aux populations alors ceci également vient à renforcer cela parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une situation euh, à la limite catastrophique euh, de flambée extraordinaire Donc si une bonne volonté vient appuyer les populations par l'octroi de, max, de masques de gel, euh, hydroalcoolique, je que nous ne pouvons que nous en féliciter. Et nous, nous le remercions très profondément encore une fois. Euh, en tout cas, au nom de l'ASC Wildan, que j'ai l'honneur de diriger, les populations de, de, en tout cas, remercient, profondément la GSE, ses responsables, mais également son coordonnateur, Ababaka Sadehbe. Je pense que euh, ce don vient à point nommé. Euh, il s'agit médical, Nous sommes actuellement ancrés profondément dans, dans, dans, dans la lutte communautaire. Et les ASC constituent un maillon essentiel dans cette communauté-là. Donc si un don est, est, est, à l'ASC, pour les populations encore une fois, donc nous, nu nous pouvons que nous en féliciter et remercier encore une fois les donateurs. Euh, ñun dañoo fekk rebondir ci appelu bi nga xamante ne président moo ko def léegi fii nag ci waa ci suñu niveau dañuy toog xam ne jëppal ak bërgi ba benn lañu boo xëyee jëppal rek da ngay ne jëppal tout ñu ne nag léegi ñun jeune dañuy woote ñu xool carrément dañuy xeex li nga xamante ne jàngoro bi nga xamante ne moo daanu fii léegi jàngoro ne ñu koy xeexee dañuy xool ki nga xamante ne njiit bi nga xamante ne mi ngi suñu gox ñu koy woowee la DG mooy Aboubacar Sarif Bey ñu woo ko wax dëgg yàlla ñu ne ko ah carrément ñun dañoo bëgg a commencé def ay don masque vu que léegi euh, xeex bi bi nga xamante ne mi ngi métti ñun te ñun yàlla may ñu comme bi nga xamante ne war nañ mën a face ak euh, danger bi mënuñu carrément léegi dinaa leen jàppale ci ay don de masque moo taxoon tey moo waral tey teewaay bi nga xamante ne mooy waa GSE teewoon fii ànd ak ñun yi nga xamante ne dañuy porter suñu projet par rapport ak xeex li nga xamante ne mooy jàngoro bi. waaw 2000 masques lañ jot 2000 masques boo xoolee dafa am jëppal 1 2 3 4 jëppal bu nekk dañ fa yóbbu bëgg yóbbu 500 masques ñu xool maanaam jeunes yi nga xamante ne ñu ngi toog te amuñ ma xam nga tey jii sans sensibiliser dafa doon li nga xamante ne dafa metti ndax feebar danga xam dafa am ñi nga xamante ne gëm nañ ko ñi nga xamante ne nekkul ne dañ ko gëm à pour cent léegi day ay porteurs de voix ñi nga xamante ne gox yow bu nekk dañ fay jël kenn muy jëppal 1 jëppal 2 jëppal 3 jëppal 4 ak ki nga xamante ne ñooy représenté ASC yi ndax ji ASC dafa bokk li nga xamante ne mooy base mooy ñi nga xamante ne mën nañ transmettre message te ASC bu transmettre message à travers ses supporters dañ koy dégg à 100 pour cent moo tax ñu ne dañuy jël ASC yi ñu porter projet bi nga xamante ne mooy ànd ak ki nga xamante ne mooy DG bi mu jàppale ñu par rapport 2000 masques koñ mu nekk ñu teg fa 500 match ñun ñooy dem waxtaan ak gox bi nga xamante ne ñun ñoo fay nekk. waa ñun moom dañuy toog dañuy œuvrer pour Dieu à travers les hommes te dans yow tout jeune war a contribuer ci li nga xamante ne mooy sa gox gox boo ci nekkee doon ndaw da war a jàpp du question da ngay naan du muy politique am na ñoo xamante ne nekkul nañuy def politique am na ñoo xam ne dañuy def politique kon képp yoo kuy ndaw da war a participer ci li nga xamante ne mooy euh, euh, bon fonctionnement wu sa sa biir gox moo tax ñun tey ji nekkul tey ñu ñuy def lii. yaakaar naa tey DG bu jugee ba ne carrément daf ñuy jàppale moom tamit dañ koy sant ndax c'est une personne sociable c'est une personne imbi de valeur patriotique vraiment ñu koy sant bu baax a baax ndax ñi ñu woo saxal nañ loolu lool carrément moom daf ñuy revenir à 100 pour cent li mu li jox nii nag du question def ñu ber ci moom ndax yaakaar naa nit bu fekkee da nga def lu baax lépp loo joxe du question dalay dalay ber ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. nous sommes aujourd'hui dans la commune de Dieuppeul-Derklé

parce que nous sommes encore au niveau de Dieuppeul. Et, euh, on a fait une partie de Dieuppeul et là on est à Derklé. On vient de boucler pour Derklé. Nous avons distribué en ce moment près de 8000 masques au niveau de Derklé. Ce matin, nous avons donné aux ASC de, de Derklé, euh, de Dieuppeul, au moins 3000 masques. Donc ce qui fait que nous continuons notre chemin. Nous allons vers Liberté 5B qui fait partie de la commune. Nous allons distribuer au niveau des chefs de cellules qui sont là-bas et les mosquées et quelques personnes ressources au niveau de Liberté 5B. Ensuite, nous irons à Liberté 5C. Nous allons donner à des responsables politiques qui sont là-bas, à des jeunes de, du chef de cellule de la GSE et bien entendu des personnes ressources. Ensuite, nous nous, nous dirigerons encore vers Djepel où nous avons beaucoup de cellules, au moins 9 chefs de cellules. Nous allons les pourvoir en masque et en gel et des, des affiches de sensibilisation. Ensuite, nous irons à, à, à Liberté 3 qui fait partie aussi de la commune, de, de la commune. Donc nous irons là-bas, nous allons donner à nos chefs de cellule, aux imams et euh, aux délégués de, de, quartier, à des personnes et à des mouvements qui sont là-bas. Donc euh, nous allons aussi, nous avons ce que nous appelons la GSE Mariale, qui, qui s'occupe de, de, toute la communauté chrétienne avec les, euh, les, euh, les cellules de, de base des, des, chrétiens. Donc nous allons leur remettre un lot de 1500 masques que nous allons mettre à, à la disposition de la communauté chrétienne euh, de Dieuppeul-Derklé. Depuis le début, nous sommes, euh, nous, nous, nous sommes engagés à, à, faire des actions dans la commune. Tout le monde a vu que le premier magistrat de la ville, de, de, de, de la commune de Dieuppeul-Derklé, a été le premier à être servi. Le, le, DGB lui-même il s'est déplacé pour aller euh, voir le maire de la commune, qui est le premier magistrat, donc il lui a remis un lot important de, de, de produits préventifs. Et nous sommes retournés encore pour donner du riz. Voilà, on a aussi donné du riz dans toute la commune pour aider un peu. Voilà, maintenant qu'il y a une recrudescence de cette pandémie, le DG nous a diligenté encore d'aller de, de, très vite remettre les dos, dos de masque, d'autant plus que le, la loi exige que, le, que les gens portent masque. sant yàlla sant yàlla euh, euh, euh, di nuyu ñëpp di bég lool di kontaan lool. mooy la ma loxoon toujours rek ci Ababacar Sadikh Bèye mësta tegg loxoom ci commune bi ah bëggul nu xiif waaye bëggul nu wopp ndax euh, daal ci firndeel daal ba mu tàmbalee feebar bi ba léegi loxoom mi ngi ci commune bi comme euh, suma ma waa ji ni mu ko waxee noonu rek la demee fu ci nekk dugg nañ fa bu dee ci côté dund la jàppale na toutes les populations wax dëgg yàlla lii de culte yi amul fenn fuñ ci bàyyi booboog léegi nag ñu yaakaar ne yëf dina tane ñu gis ne rek affaire bi dafa mel ni luy xaw a gën a yokk ah mu ne na jóg leen sama commune bi wax dëgg yàlla bu ma sañoon daal ngeen jàpp ci ba dootuma fi dégg dara ah léegi nag masques yeeg gel yëpp lu toll ci 35000 masques yooyu la ñuy distribuer ci commune bi ci suba ba léegi ñu ngi ci ASC yi lieu de culture comme ni nga ko waxee bàyyiwuñu église yi bàyyiwuñu jumaa yi bàyyiwuñu fenn ci bàjjenu gox yi lañ jógee léegi donc fi mu nekk daal loolu la ñu commencé di tasaare ci fi nga xam ne commune bi pour ñëpp sant ci seen bopp wax dëgg yàlla day commune jëppal Derklé bëggatuñu kenn ku fi jóge naan awma masque buñ paree ci lii te loolu nag jox nañu lu loo xam ne mën nañ koo servi te dañ ko servi ñi nga xam ne ñoom lañ koy jox nañ ko joxe ndax wax dëgg yàlla ki ko war a joxe joxe na ko teg na ko ci loxo yi ci loxo yi ñu ko tegit nañ ko teg ci loxo askan wi ndax askan wi mën cee santi seen bopp te jàpp naa ne noonu lay demee